jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen baal àq di leen baalu bi élection yi passé léegi defuma benn xew-xew pour waxtaan ak senegale yi dama toog di xaar di déglu lépp ñu jéem ko teg ci li nga xam ni moom nañu bëgg a mel mooy teg ko ci yar ak teggine may nuyu kilifa diine yi di len ñaanal di len ñaanal ñom ñep ñi yag fi te wér sunu waajur yi nek ci islam ñu nek ci wëru yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu leen di nokkeel ñi nga xam ni nekkuñu ci diine boobu ñu leen di sant di leen gërëm di ñaanal ñépp jàmm di ñaamal doo senegal bu mu mënti nekk jàmm ak salaam tey jii dégg nañu ay xew-xew muy accident bu metti bu am bi ñuy ñëw ñaanal nañ bi ñuy tàmbali dafa jaadu ma ñëwaat ci masawu Sénégal yëpp ñu dégg it démb xaw barki démb am na ay xale yu doon jéem a génn réew mi ci anam yoo xamante ni rafetul baaxul mu am it nattu yu leen dal ñuy ñaanal ñi nga xam ni jóge nañ fi ñoom ñépp yal na leen yàlla yërëm te xale leen àjjana loolu yëpp di ñu won sunu responsabilité sunu cër ndax lu dal benn sénégalais jàpp ne ñépp la dal bu nekkee bànneex la dañ ko war a bokk bu nekkee safaan ba ñun ñëpp dañ ko war a méttitlu ànd jéem ko saafara may nuyu kilifa Benno Bokk Yaakaar yëpp di leen di leen di leen jéggalu di jéggalu

Benno Bokk Yaakaar looloo tax man sam bopp woowuma ci kenn invité wu ma kenn def nañ ko ñëw ngeen maa ngi leen ciy jéggalu waaye ni ma ko waxee sànq ci kàllaama nasaraan ku nekk ci yéen dinaa sol sama dàll dem ba ci yow wax yow moo xam moo xam moo xam moo xam ñu déggoo ci initiative wala ñu bañ ci déggoo mais sama wareef mooy ku nekk ci yéen ma tàllal la loxo wax ak yow Benno Bokk Yaakaar yëpp dinaa ko ci def def ko aussi

amoon nañu tuuti jafe-jafe loolu yi dëgg la mais loolu pour man mi ngi ci ginnaaw pour man loolu mi ngi ci ginnaaw mës naa ko wax ci benn ndaje secrétariat exécutif u wax naa ko it ci benn ndaje Benno Bokk Yaakaar ku nekk ci ñun li nga yéene sa moroom yàlla na ci jiitu dafa naa ne bi may wax loolu ñu bare ci yéen yéen a ngi toogoon ci loolu laa nekk ba tey ci loolu lay dox ba tey moo tax lu coow li bari lu commentaire yi bari duma ci wax ci sama wàllu bopp Sénégal benn la ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk bàyyi kon nañuy fàttaliku nañuy fàttaliku li rafet ndax loolu mooy jëmale Sénégal kanam leneen lu nit mën ci def rek nañu jàpp ni njuumte la juum nag nit rek lay daal waaye am na ci benn ba ñaari mbir yoo xam ni man la concerné nag foog ma wax ci waaye du ma ci bi ñuy wax dañuy dandal élection yi sama position dama jàppoon ba tey di loolu laa gëm baaxul woon ci Sénégal awma beneen xalaat lu dul baaxul ci Sénégal na ma ko waxee woon en décembre 2021 ci benn secrétariat exécutif fekk maag samay morom yu bari ñuy doog a génn ci gouvernement ma ne leen réew mi nuroon nag lu dal dama koy nettali parce que ci mbooloo laa ko waxee woon réew mi niroon nag lu dal mais lii di dox buñ ko artuwul gën baa bari fii ak ñeenti weer réew mi dina am ay jafe-jafe yoo xam ne dinañu metti ñun ñëpp lu mel noonu nag lu mel noonu nag laa doon tiit ci senegal moo taxoon ma jàpp ni dëndal élection ñu def ko ci jàmm ak salaam ku gañe gañe sénégalais yëpp jàppale la bàyyi la nga liggéey jàpp naa ni loolu moo gën ci Sénégal loolu moo ëpp suñuy jëm loolu de def naa ko dégg naa it ñu wax ba boole ma ci ay guerre boobu ñu ngi yàq ma bëgg xamal wa Sénégal fi ma taxaw musuma wax ba ma def ci langue politique muy wa APR di benno lo xamanteni buñ ko netalé damay sëgg duma def duma def lu yàq réew duma def luy boole réew kon loolu jàpp leen ni boobu la ñu tëj wax jooju kenn waxatu ko yàlla dogal na sax bi ma déggee ñuy tudd juge yooyu kenn ki sax ba tey ji fàttaliku ma fu ma ko mës a nuyoo dégg naa it ñuy wax ni am na ay candidat yoo xam ne maa leen recalé am na sax kenn ku ci aadu loolu it defuma ko loolu it defuma ko bi ñu tollee ci recours recours yi ma waroon def def naa ko teg ko ci yoon ñëpp yëg ko ñëpp gis ko loolu nag droit ak yoon may na ko candidat bu nekk waaye beneen candidat waxuma ko defuma ko bu ñu amoon nag jataay politique xëy na doon nañu waxtaan sunu biir réero yooyu

dem ci yoon ne lii d'accord naa ci walla lii d'accorduma ci mais bëgg jàmm réew mi tax ma ne loolu yëpp duma ci def dara duma ci wax dara téléphoné ki nga xam ni moom la yàlla jox ndam félicité ko ñaanal ko bàyyi ko muy liggéey ndax boo amee ndam Sénégal yi fay am ndam ñu ngi nag déglu gouvernement bi ndax yàlla daf ma dimbali ma am ay jaar-jaar yàlla dimbali ma ma gis yu bari fekkee yu bari kon bon bu may wax ci mbir rawatina réew niñ ko téyee damay xaar ba am jumtukaay yépp jumtukaay yi nag mooy loi yi doxal réew mi décret yi muy àndal walla programme yi nga xam ne am nañ ko yooyu bés buñ ko gisee rek incha allah dinañ ci wax sunu xalaat de la manière la plus constructive ndax bu dul loolu loo wax rek daanaka ci nit nga koy jëmalee kii nii la mel nële la mel te loolu doonul loo xam ni dina yokkal réew mi dara may nuyu nag sama xarit yi nga xam ni ñoom ñoom ñoo organise lii ñoom ñoo def lii Cheikh Oumar Anne maa ngi lay sant di la gërëm gis naa sa pas-pas sa engagement yow Aliou sal Latif Zara maa ngi seen Mamoudou Ibra Cheikh Oumar Ndeye Sali maa ngi gis ñëpp yéen ñëpp maa ngi leen di sant yéen ñëpp maa ngi leen di sant isaaxa loolu moo tax lim loolu moo tax lim loolu moo tax lim wóorul Moïse Sarr le maire de Sakal ndax yéen la woon ca njalbeen Omar Sow yéen ñëpp yéen ñëpp yéen ñëpp li tax tey li tax tey may installer comité d'initiative damay njaboot damay jabor. biñ ko yëkkatee ñii xam ni dem naa ba ne leen nañu dàq bés bi ndax boo dee njaboot ñi ma wax dañoo bëgg a ñëw ñi ma wax dañoo bëgg a ñi ma wax

dina waxtaan ak ñëpp benn préoccupation rek la am mooy ku bëgg jàmm deuxième préoccupation mooy ku bëgg réew mi troisième préoccupation mooy ku gëm démocratie quatrième démocratie mooy ku jàpp ni ku jàpp ni liggéey rek la ñu def ku bindoo noonu mën nañoo ànd mu doon une initiative commune une initiative boo xam ne ñu ñoo koy àndandoo demee ci ndànk-ndànk def ko ba mu mot sëkk kon comité bi yaatal leen ko vous êtes installe mais nañuy wax ak ñëpp man sama wàllu bopp danaa wax ña nga xam ni ñu ngi ci bennoo dana wax ak ñinga xamni ñu ngi ci biir APR dina wax ak ñinga xamni bokku ñu ci benn langue politique wala bok seen yefu bop lañu amone wala bok ñu nekkon ci leneen wala bok liñ doon wax ànduñu ci wala bok liñ doon def bëgguñu ko ku ci nekk dinañ la talal loxo woola ñu and bu boba ñu def nek lo xamanteni ni lancement bu maga maga mag lay nekk Assemblée générale ou congrès grandeur nature nga xamni ku ci am responsabilité ku ci am cër ci base bi lay jógee xalé yi nak war nañ ci jouer un rôle principal Na xalé yi nima ko waxé c'est l'avenir kenn werante wu

moo tax ma nangu moon wàcc ci buntu saal bi ma ne ñi taxaw ci taw bi brave ndox mi waruñu maa gën a gore ma dem ba ci ñoom nuyu leen sargal leen remercier leen maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm yéen ñëpp di leen gërëm yéen ñëpp di remercier vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. vous plaît, conclure. vous s'il vous plaît. s'il vous plaît. Mangi vous plaît, ancien ministre ancien DG teewaayu député conseiller économique et social l'opté mairie maire Théo nañu responsable de nga xam 46 départements yi ngi pour son engagement di nuyu pour cette détermination. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. la voix des sans-voix.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 tuddul Sidy Lamine Niass